اوكي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نجي سنتار سنبروم سبحانه وتعالى في لم نمي توفيق ندجوات في أبنيغم في بير ويرو كور di fas yéene jàng ab téeréem loole di bunt yiw bu yaatu bu mu ubbil ay jaamam ñu ngi ñaan yàlla na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko di ko ñaanal it uh, ñi ci ànd ak ñun ak fuñ mën a nekk ci kaw suuf yàlla nañu yàlla boole ak ñi nga xam ne ñoo leen koy jottali ci la nga xam ne nii mooy ngërëmam ak afiyam tey jii mooy fukkilu fan ak juróom benn ci weeru tedd wi di chehru ramadan ci 1442 allah ñu ngi war a jël ay ñiin fukk ak benn ci suuratu zumara suñu borom di waxee ni إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق سيدي الشيخ عثمان فارنا مجلل نسني بن دبودك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنبروم سبحانه وتعالى مني إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق ñun day يو تيربا ci yow تدق فمن اهتدى فلنفسي ko xam nanguna jup na jub dong la jubal wa man dalla fa innama yadhillu alayha ko xam da sanku dana sanku rek sanku te koy delu ci kawam wa ma anta alayhim biwakil yow nak ne ko ko ni yaay kalen di sam bañu jub allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha yàlla day mooy jël bakkan ya jamono ba ñuy dee wallati lam tamut ba nga xam ni deewul it dana ko jël fi manaamiha ci ay nelawoom fa yumsiku allati qada alayha almawt mu daal di la la ba nga bakkan ba nga xam ne dogal na ci moom dee wa yursilul uxra daal di del yebalaat ba ca des ila ajalin musamma ba ci dikk ba nga xam ne tuddal na ko tudd nañ ko إن في ذلك الآيات قوم يتفكرون نكنا تلول دي اي كاوتيف نيال خير يو خمنا لني نك دي خلات أم يتخذوا من دون الله شفاء أم دني جلغنا ويالا نيو خمنا نيولين دي رمو قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون نيال آ دونتنا نيوم نكو دي موم دارا دي قلو قل لله شفاءة جميعا nel ñel na yalla romb ko mo la seen lahu mulku samawati wal ard ñel nako momi lok asmani ak suuf thumma ilayhi turja'un ganna ba ci mom ngeen di delu mo la seen mi ngi nonu bokk gis nañu suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala téré bi ñu tim muy alquranul karim neena moko wacce moko wacce mu joge ci mom te it julit day gëm ni suñu borom yàlla ma nga ca kaw asamaanam ya ma nga ca kaw arasham ba mboolemi yahud loolu lañ gëm mboolemi nasaraan loolu lañ gëm mboolemi julit it loolu lañ gëm ba baa nag am ñenn ñoo xam ni am na ay pas-pas yu ñuy jëlee ca inde dogal ko ci diine yi jóge kaw asamaan dem ba nan yàlla ngi fépp mbokk loolu da ngay gis ne ak ndof la rek lañ ko mën a tudde yàlla ma nga ci kaw arsham ba mooy yónni nag ay malaaka jox leen ay téere ñu koy wàcce ba ca gën a tedd mooy téere bi ñu téem di alquran suñu borom moo ko wàccee ba mu ko wàccee it wàccewu ko ci ñëpp ndax bu doon looloo ku nekk yaa xool noo koy interpréter noo koy xalaati waaye daa tànn benn jaamam wàcce ko ci moom muy suñu ci yàlla muhammad moom la yàlla wàcce alquran ngir mu leeral ko nit ñi alquran jooju nag ñëw na nekk hudan linnaas linnaas yàlla def na ko ngir mbooli mi doomu aadama ba ila yawmi loolu seen njub la mi ngi noonu chahru ramadan lazi unzila fihi alquran hudan linnaas téere bi it ci dëgg la wàccee mooy waxi seytaane dugg ca waxi njabar dugg ca bànneexu kenn dugg ca ci yàlla la jóge jaar ci jibril wàcc ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi nag mi ngi noonu leeralal ko jaam yi gannaaw loolu kum neex jëbal kum neex teggi jaar ca mbooy ga kum neex jëbal kum neex teggil képp koo xam ne jub na daal boppam la jëbal te lool it mbokk di loo xam ne ba tey nit ñu bari mënuñu koo comprendre mbokk nga la waaye abu bakarin saddiq ak a baax waaye gis nga la doon jaamu yàlla boppam la jaamul yàlla de doomam ju mu jur soxnaam su muy fanaanal ku ci jaamul yàlla perte nga ëllëg yowm alqiyaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw na ca safa ne ay yéen waa makka ay wa waa waa quraysh ay yéen bani haashim sama famille ay fatima musal leen seen bopp ci sawara kat sama jaamu saa bopp lay jaamul loolee ñu bay ko xel bu baax képp koo xam ne ni it réer na boppam la réeral te loolu mooy maam ak yàlla kenn di ñëw yomal xiyaam ñu la waaw xanaa ki ju doomu diw ñu naaw mën a safara déedéet sa bàyyi la mu doon def ci boppam la yem na doon lu baax la na doon lu bon la amma yow nag liñ la sant ma yow ma ala rasul illa al balaax rek la sant waxuñu lu nag yaay war a imposer ku nekk ba mu gëm déedéet jottalil rek la ñu sant amoo benn kattan ci gëmloo kenn wala weddiloo kenn loolee mbokk da ngay gisit ne ku ñëw gannaawam loolee day feeñ ci moom kon mbokk téere baa ngoog képp ku ko topp dara texe àdduna texe àllaaxira fa li nafsi mi ngi noonu borom bi nag gannaaw ba dañuy wax benn kawtéef ci ay kawtéefam boo xam ne jullit da koy dund yéeféer di ko dund te bu doon doomu aadama dana waaru doy na ko waar ca mooy la nga xam ne mooy dund ak dee ak nelaw ak yeewu bokk suñu borom nee na moom mooy jël ruuxi jaami bi ñuy faatu moo koy jël ndax mooy santaane ña koy jël te jii buñ ne woon euh, euh, milliardaire sàngam waa moom moom moo tabax immeuble tabax na immeuble fii tabax na jàkk fii tabax na nangam ndax moo futteeku di ko tabax laa waaye moo ko moom moo ci joxe ndigal kon yàlla moo joxe ndigal ay malaakaam ñuy jël arwaaxu ñi nga xam ne dañuy dee muy benn mbir boo xamee ni tey science toll na foo xam ne ñun raw nañ suñu maam plus de cent mille fois waaye ba tey science mënul xam ruux lu mu tëddee nit ki dee dañuy dem ba constater ni dee am na mais lan muy génn ci moom ba tax mu dee loole kenn xamu ko su dee dee na ba pare bu ñu mboolem scientifique du monde entier réunis dëppoo nañ ci nii kenn mënatu ko dekkal mi ngi noonu am na benn savant russe bu ñuy wax ni tëju na seize ans seize ans ci laboratoire rey ay janaxak ay jaanak ay bëy lu ne lu ne léegi nag di seet ba xam lu dee nu ñu mën defam dekki après seize ans de recherche la génne na daal sëñ bi lu dee moom dee na mi <laughs> ngi noonu lu deewagul nag deewul jeex na mooy ruux doomu aadama mën na jóg batiment daanu ci kawam mu tojotoo tojotoo yax yëpp tojotoo mais bu deewul deewul doomu aadama mën na reer ba suur waxtaan ak nit ñi xëy dee ruux amati fi dee na kon ruux secret borom bi la moo tax yonent bi alayhi salaam ba yéefiri ñëwee di ko laaj borom bi nee na yasalunaka ani ruux xulir ruux min amri rabbi ruux moom su suñu mbiri borom la ruux googu nag dana am ak doomu aadama juróomi rapport juróomi rapport rapport bu njëkk bi doomu aadama mi ngi ci biiru yaayam euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam na bu amee quatre mois la ci yàlla di di jox ruux mi ngi dund ci biiru yaayam pendant cinq mois mën na ko ci biiru yaayam ak ruuxam di dund tey jii bi nga xamee ne yàlla may na doomu aadama di mën a am ay échographie ay scanner rek yooyu dañuy gis xale bi day dund mi ngi dégg mi ngi réagir ci lekk yi nangam lépp def ay réaction mu ngi noonu gannaaw ba bu juddoo rek commencé yuuxu commencé tissoli commencé kii kon mi ngi dund waaye dund googu mbokk julit rapport la boo xam ni xam ngeen ne jaar ngeen fa ni ma fa jaare mais kenn ci yéen fàttaliku fàttaliku ko mi ngi noonu amma bu ñëwee ci kaw suuf di dund am rapport bu roox gi am ak moom ca mooy mi ngi dund mi ngi yëg mi ngi dégg mi ngi lekk mi ngi xalaat mi ngi créer ila axiri muy deuxième rapport bi troisième rapport bi mooy buy nelaw ki nga xam ne day nelaw mbokk mi ngi dund mais ban dund lay dund mooy dund bu dépendrul ci volonté am looloo tax kiy nelaw sharia du ko topp te ji man ngaa tëdd di nelaw ci gént gi nga dajeeg jabari jàmbur njaaloog moom ba mu nuyu génn ci yow boo xëyee suba danga nga war a sangu ji mais ndax am nga bàkkaar <laughs> amoo bàkkaar man ngaa gént dajeeg téeméeri xale ren di leen ñoom ñëpp ndax am nga bàkkaar amoo bàkkaar mais am nga yëg-yëg boo xam ne nii yow ci biir gént gi def nga li ngay def bi nga yeewoo it fàttaliku nga ko mais muy rapport boobu nga xam ne ruux dana ko am ak doomu aadama muy troisième rapport am ñeenteelu rapport bi mooy bu deeyee ba ko doomu aadama bu deeyee am na jokkoo goo xam ne ruux gi dana ko am ak jëmm ci moo tax yonent bi sallallahu alayhi nee na bu ñëwee ci bu ñëwee ci bàmmeelam dañ koy delloo ak ruuxam yëkkati ko mu toog ñu pose ko ay question question yi bu ko répondre am na yeneen lu cay topp bu ko répondrul am na leneen lu cay topp muy dund ci barzaq dund goo xam ne bokkul ak dund gi mu doon dund ci kaw suuf mais su booba lam doon dund ci kaw suuf mooy déterminé ay mooy tëral dundam ci barzaq su doon jaaroon na fu neex yàlla dund barzaq boobu lay nekk rawdatun min riyadil janna benn jardin ci jardin àjjana su jaarul na fu neex yàlla dund googu day nekk rawda day nekk xufra min xufri nar mi ngi noonu day nekk pax ci pax sawara amma ñeent juróomeelu rapport bi ruux am ak doomu aadama nag mooy su ko yàlla dékkalee su ko yàlla dékkalee nag la koy booleg ruux ruux goo xam ne dee amul gannaawam gis ngeen dee amatul gannaawam su ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na waa ajjana daañ leen woon dee ndax xam ngeen kii ñu la lii mooy dee mu ne waa sawara ndax xam ngeen kii ñu ne lii mooy ah lii mooy dee suñu borom ne malaaka yi na dee dee dee daa dee ñu ne nag waa aljana alxulut dee amatul waa sawara alxulut dee amatul gis ngeen amma nag ñaari étape bi lañuy yàlla di nettali fii étape bu njëkk bi mooy waa ji yàlla jël na ak ruuxam yàlla jël na ak ruuxam dee na dee na waa ji nga xam ne day nelaw yàlla jël na ak ruuxam ju jëlug yëg-yëg jëlu ko jëlug dee waaye jëlug yëg-yëg la koy la ko jël jëlug yëg-yëg googu mu ko jël tax na muy dem di mën a gis lu ko yàlla woon loo xam ne ñëwagul mën nay dem di dund lu neex di dund lu naqari mën nay dem di jokkoo ak ak ruuxu ñi ko jiitu woon ñi dewoon jiitu mu gis leen ñu wax ko ay wax comme mën nay dem ah suñu borom indi ay kawteef am na benn kawteef bu amoon ci gazwatu Yamama mooy musaylimatul kazzab saay saay bu bon ba bee nga xam ne mooy première fitna bi gën a sonal jullit ñi ci bi yonent bi alayhi salaam faatoo moom it mu ne yàllaa ko yónni jullit ñi dem xeex ak moom xeex bu xeex yu metti gannaaw yàlla juróomi téeméer ci ñu mokkaloon alxuraan foofu lañ daanu sabab boobu moo tax Omar ibn al ñëw na Abu Bakar il faut ñu dajale alxuraan ci téere ndax li xew tey bu amaatee daan dem bi ñi mokk leen alxuraan dañuy jeex loolu mooy sabab ba ci biir xare boobi am na général bi ko jiitoon mooy Khalid ibn Walid kii di Saabit ibn Qays mooy ka suñu borom di wax ci suratul mujadala mi ngi noonu ci ñi nga xam ne dañuy yëkkati seeni kàddu Saabit boobu dafa faatu daanaka gazwatu Yamaama kenn ci saxaaba yi gént saabit dajeeg moom na ko diw man sama mbubb bi may sol pour guerre mi ngi nekkoon ci samay bagage diw moo ko sàcc te dama bàyyi Madina benn bor nañ ko jël fayal ma sama bor boobee gis ngeen bokk na luñ ci jëkk a dégg yonent bi alayhi salaam daana wax benn waay ñëw na ci moom ayum yàlla yónni su ma jihaadoon ba faatu ci sabi fi sabilillah ndax yàlla dana ma baal mu ne ko ah kay yàlla dalay baal lépp waa ji jóg dem bu mu yonente bi ne ko kaay nga ne loo loo wax mu ne ko demal ne ndax su ma su ma su ma jihaatee ba yàlla def ma dee fi sabilillah yàlla dana ma baal mu ne ko yàlla dana la baal lépp sauf bor yàlla dana la baal lépp bor gaa yi bor lu daggan la julit boo amee soxla demal leb sa mbokk julit waaye nga la way bu la yàlla baaxee demal fay bu yàlla baaxee demal la fay loolu mbaaxug yàlla la yàlla nattu la amoo yàlla nattu nga fay yàlla nattu la nga am demal fay yaa ngi dégg mu ne ko nañ jaay sama mbubb bi ngir fay sama bor bi saxaabi bi ñëw ci Xaalid ne ko ah man di damaa gént gént gu yéeme nettali ko gént gi Xaalid woo kiñ ne woon moo sàcc mbubb bi bi mu ko xuppee waa ji ne ay yoon dem génne mbubb bi ñëw booba ñu nga ca yamaama ci dëkk yi sori Madina bi ñu dellusi waatee ci madina waa ji sabit ibnu qays na woon dama ko daf dama koo yoral masalan cinquante mille biñ ñëwee waa ji ne wax ni dëgg de borob cinquante mille dama yoral ñu jël mbubb ma jaay ko fay ko mbokk loolu mi ngi jóge ci ruux yu yàlla subhanahu wa taala dajale kii mi ngi nelaw kii mi ngi dee yàlla dajale ñaari ruux yi ba am information yoo xam ne jóge na ci am maa nag bu dee ne li ñu yàlla nettali ci alxuraan ci gént la ci yàlla jël ay xabaar kenn xamul lu ma toll yonent yàlla Yuusuf a gis ngeen lam géntoon ci bàyyam ak ay frère am di ko sujuutal daanaka après 30 ans la réalisé wu ñu dem ba mu géntee ne am na 14 ans yuy nar a am ci dëkk bi 7 yoo xam ne day naat 7 ans yoo xam ne maral lay doon ak yeneen ak yeneen ak yeneen comme ni ngeen yàgg a génte yéen ñëpp kon loolu mbokk kaawteef la moo tax suñu borom ni képp koo xam ne da ngay xalaat war ngaa xalaat ci lu mel nii ca mbokk yàlla mi am kattan nelawal doomu aadama wan ko ay kawtiif yàlla moomu am na kattan bis bu deeyee mu mbugal ko ci bàmmeelam am na kattan mu dekkalaat ko te képp koo xam ne nii gëm na gént nga xam ne raison mënu ko explique amul lenn lu mën a expliquer gént xelu doomu aadama yëgul foofu doomu aadama gént lu loo xam ne amagul ci kaw suuf mosu koo dund mu gént ko mi ngi ñëw loolee kenn mënu ko expliquer mi ngi noonu bu doon lii fi passé sax xëy na tubaab bi mën naa wax ne non mémoire bi moo am ay réserve kaza wa kaza mais li ñëwagul <laughs> loo xam ne xamaguloo ko loole moom da ngay gis ne yàlla rek moo ko mën a indi loolu moo tax ba mbokk suñu boroom nag di ñuy wan ci ni dana delloo benn ruux bi ba ci jëmmi jamono kon ñaari ñi tegi nii kii faatu na yàlla jël na ak ruuxam dee na kañ lay dekki yowmal qiyaama keneen ki yàlla jël na ak ruuxam ci nelawam bam ba mu soobee yàlla yàlla delloo ko ko mu yeewu looloo tax mbokk julit yonente bi alayhi salaam mosaan yeewu ci ay nelawam danaan alhamdulillahi lazi ahyaana baadama amatana wa ilayhi nushur ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu dekkal gannaaw bu ñu faate waaye ci moom nag la ñuy dellu yawmal qiyaama ca mooy yiw mi nelaw di yeewu ma yeewu suñ caam ba nga juddoo ba tey ñaata yoon nga nelaw yeewu xamal ni bis dana dugg da nga dugg ci nelaw yoo xam ne doo yeewu ila yawmiddin gis ngeen loolee ku ne war ko bàyyi xel ila ajrin musamma borom boobu kon loolu la wax ci wàllu googee mu ne nag ndax lii lépp nan la ko nit di dunde ba pare am keneen ko muy yaakaar ne mën na koo ramm ku dul yàlla subhanahu wa taala donte ñoo ñu ñuy yaakaar muumuñu dara ca amuñu sax xel ca mbokk dañu xam ne ak ramm day am na ak ramm am na su doy ne yéefir yi ñoom gëmuñu sax àllaaxira waaye bu dee nit ñi gëm àllaaxira masalan yahudiya gëm nañu ne Uzayru mi ñi gëm mooy régler seen problème yépp àllaaxira nasaraan yi ñi sab na Maryam mooy régler lépp amma ñun jullit luñ gëm moo di ne ràmm lépp ci loxo yàlla la nekk man za llazi yashfau indahu illa bi izni qulillahi shafaatu jamia mi ngi noonu su ko defee suñu borom yàlla subhanahu wa taala moom mooy xool ku ko neex ci ay jaamam mu ne ko ñaan ma ma def nangam ci samay jaam ka jiitu ci jaam yooyu muy suñu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla dana ko jox ndigal mu ñaan ko mu def shafaatul kubra yàlla rammu nit ñi atte yàlla jox ko ndigal mu def shafaa am xeetam ñuy tabbi àjjana ca kenn du leen xisaab yàlla yàlla boole ñu ca mu may ko shafaa ñoo xam ne seeni jëf daa yeme woon ñu dem ajjana mu jox ko shafaa ñoo xam safar la ñu ñu baal ñu dem ajjana dana ko jox shafaa ñu dugg safara ba pare sax ñu génn leen loolee ay jagleel la sallallahu alayhi wasallam gannaaw ba yeg doomu aadama yi yonent as-salihin ak malaaka yi ñépp ku ne suñu borom dana la jox ndigal ci nga ramm kosob yàlla loolu tax ba julit du de man abubakar ni sadiq moy sama yaakar aduna ak alakhira kene wa ñun day omar moy suñu yaakar kene ñun ousmane dedet mbokk julit yep yalla rek la ñuy yalla nak nag su ko waxuma boole la kuloram waye waaye bu ko neexee sa gërëm la ba boole la ci ñi ramu far gis ngeen ci yalla rek lañ ko yaakar borom bobu nag subhanahu wa taala neena na mom ak ramm dem ñu nekk ci ko asamaan ak suuf sama momel lañ momu malaika yi yonent yi nit ñi baax ñi moo leen moom mooy dogal ci ñoom lu ko neex muy almalik te ci yàlla la ñuy dellu fu ñu mën a wiiri wiiri wiiri mbokk doomu aadama yépp ci yàlla la ñuy dellu looloo tax jullit lu ko mën a dal ci nattu danaan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun daal moomeelug yàlla la ci ci yàlla la ñuy dellu mi ngi noonu Cheikh Ousmane wa ida dukira allahu wahdahu ishma'azzat بارك الله فيكم سني بروم موني واذا ذكر الله وحده اير بني تودي يالله كسي اشمع الزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره مودا دي نيك دا دي لمو خولو نيغا خامني گمو ني الاخره واذا ذكر الذين من دوني بني تودي نينين نيغا خامني گناو يالله نك اذا هم يستبشرون سببا ني فينيل سين بيكتي قل الله مفاطر السماوات والارض نل اي يلا سني بروم بني جامو ياي كي بيند اسمان يك سوف عالم الغيب والشهاده ياي كي خم كوم خم لو فين انت تحكم بين عبادك يو يا ات ديغنت سي جام فيما كانوا فيه يختلفون يلاغا خم ني نيكون نانتي ديتا ووتي سني بروم ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا تي بودون دا فا نيل ñi ñi nga xam ne dañoo tooñ li nekk ci kaw suuf mboole seen wa mislahu ma ñu amoon lu tol noonu encore ànd ak moom laftadaw bihi min suu'il azabi yawm alqiyama kon day doon nañ ko jotoo ci ñaawaayu mbëgalu yawm alqiyama wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yaxtasibuun noonu lay feeñee jóge ci yàlla loo xam ne nekkuñu woon mukk di ko njort mi ngi noonu mbokk suñu boroom day wax li ëpp ci ay jaamam heure bu ñu déggee kuy wéetal yàlla jalla wa ala di wax ne yàlla kese lañu war a jaamu yàlla rek lañu war a yaakaar yàlla rek lañu war a sukkandiku keneen koo yaakaar te yàlla perte nga koo sukkandiku ci ku yàlla perte nga seen xol yi day tàng seen xol yi day lemu amma nag boo doon wax nag ba tudd kañ yaakaar nag ah su boobaa nag seen mbig daal di feeñ mbokk lii ba ko ay borom bi di wàccee mu ngi wàccoon ci yéeféer yi nga xam ni la leen doon bégloo mooy ñu tudd laat wal uzza la leen doon bégloo mooy ñu tudd hubal ak ñu mel noonu bañoon kadduk la ilaha illallah waaye mbokk seytaane mën ne mën ne doomu aadama yu bari demal ci ay jataay yu bari nga dégg waaju fay nekk di waaraate wala koy waxtaan wala lu mën a doon mën naa tudd yàlla fukk yoon ak juróom-ñett dara du xew yeneen ci yàlla bi dara di xew waaye bu ñëwee sëñ diw nga gis dënn yëpp rëcc ñëpp fettaxoondoo bokk loolu ci seytaane la jóge bu dee màggal ko yàlla gën a yee màggal bu dee ne réagir ko ci turu yàlla moo gën a yee réagir wala borom bi subhanahu wa taala taala di di di wax jullit ñi bu ñu tuddee yàlla seen xol yi day yëngu loolu mbokk lenn dong moo ko jur mooy ñu dem ba yàlla gënal la leneen ca muy loo xam ne mbokk lu yomb la ci réew yu mel ne réewu Sénégal ak ak ñu mel ne ñoom bu dee ne ndaw bi dafa juddoo ci benn gox gox boobee ña fay waaraate seen wax yépp sëñ diw li ko yàlla defal sëñ diw li ñu li ñu yaakaar sëñ diw àllaaxira nangam nangam du dégg du dégg lenn lenn lu dul lañ koy wax ci sëñ diw mais kooku mbëggeel ga muy am ci sëñ diw muy gën a kawe ba mu am ci yonent yàlla bi muy gën a kawe bu mu am ci yàlla jalla wa ala loolu nag mbokk benn constat boo xam ne doomu aadama yëpp ko constaté tey jii bu ñu la waxoon taxaw benn ci jataay yu bëri nga wax lu ñaaw la ci yàlla moo lay gënal nga wax ko jëmale ci lenn ci sëriñ si ndax bu bàyyi doo ko fekkee loolu nag mbokk ab jullit dafa war di bàyyi xel di jéem a xam ne xéewal la gu yàlla def moom ci boppam yàlla ko bindal ñeel boppam ba mu koy bind dara taxul mu bind ko dul mu jaamu ko mbool mu nekk ci yow ci xéewal ci yàlla la jógee keneen ku dul yàlla mënalu la dara looloo tax ba yàlla mooy màgg ci soxol xol loolu sharia loolu la jàngale sunu diine ji amul benn julli booy julli lu dul ñaata yoon ci biir julli ngay wax allahu akbar allahu akbar ngir feeñal ne yàlla nga war a gën a màggal lépp looloo tax suñu borom nag ngir delloo nit ñi seen xel mu ne yow yonent bi fàttali leen ne yàlla mooy ki bind asamaan yi ak suuf ñii nga xam ne buñ tuddee keneen ku dul yàlla seen ñu fetteexu yëkkati seeni seeni seeni mbégte buñ tuddee yàlla kese ñu daal di am lu leen naqari nee leen yàlla mooy bind asamaan yi ak suuf te yàlla mooy ki xam kumpa mooy ki xam li feeñ ca yàlla yit kese muy atti diggante ay jaamam ca la nga xam ne dañ nekkoon di ci wuute mbokk yowmal qiyaama du ñu dem tribunalu muhammad sallallahu alayhi wa sallam du ñu dem tribunalu abubakar bal benn tribunal ma fa am mooy tribunalu borom bi jalla waala borom boobu nga xam ne tëraloon na ay ndigalam ndigalam yi am ñu néew ñu ko gëm di ca woote am mbooloo moo xam ne dañ koy weddi di daggasante ak ñoom suñ borom dana atte seen digënté yowmal qiyamah lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam heure bu ma san yewu ñël dina fi la bok na ca ñaan yam daan ñaan allahumma rabb jibril wa mikail wa israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم يلا يا بنا سماني يا أكسوف يا يخم كمب أغلفين يا مم جبريل أك إسرافيل أك ميكائيل يا نيو دجل ألك بني أتي يال ني دبليك لي دغ تي جويو بيغا خامني ساي جام دنج كو جويو لولي موكو دي نان غو خامني كودي ورنا تي باي خيل بوكنا ييت لو خامني يالا ريك مو مانا اتاي جام داخ يالا ريك موي كي خام كومبو te jii doomu aadama yi ci ni nga ko déggee ci dars yi passé ana ñaata juge yoo xam ne yu jub lañu yu maandu lañu bëgg atti dëgg et pourtant day bés bu nekk ñu condamné innocent bu deful dara bés bu nekk dañuy acquitté bàyyi koo xam ne criminel la lan moo ko waral mooy liñ leen indil ci ay dossier ci loolu la ñuy basé pour atte amaa suñu borom nag soxlawul dossier moom daa fekkee lépp xam lépp mi ngi noonu borom boobu kon mu ni mooy atte jaam yi yowmal qiyaama mu ne nag bis buy atte ay jaamam doomu aadama bi amoon trésor yi kaw suuf yépp ñu dubleel ko ko doon na ko bëgg a joxe ngir mucc ci mbëggalum yowmal qiyaama mbokk loolu yow jullit bi ko dégg dalay jàngal ci ne ndekete bàkkaar bii di jëme sawara su doonte ne su ma ko defee am trésor yi nekk ci kaw suuf yépp loole yow jullit du la ko jaral mukk du la ko jaral mukk ndax nga xam ne bis bu sawara tee woon boo amoon àdduna ak li ci biiram ak duubulam da nga ko joxe ngir mucc ci sawara loolu mooy la nga xam ne nii jullit da cee war a bàyyi xel fu mu mën a toll woroom bi nag nii ñooñu sàgganoon toppoon àdduna ba ñëw nar a dajeeg sawara dana leen feeñ ci yàlla loo xam ne yaakaaruñ ko woon te mbokk mi ngi noonu bari na lu bari ci doomu aadama yi kenn ci suñu ay <laughs> mbokk muy wax na c'est pas possible dana bari yowmal qiyaama trop doomu aadama yi liñ jàppe ne àllaaxira noonu la demee wallahi buñ demee dañuy fekk demewul noonu benn ndaw Moustapha Cissé yàlla ñal dolli dolli ko ko tey dafa day dafa may nettali nee na daa ànd ak nijaay ji ñu dem ci benn banque fii ci Ndakaaru bi ñëwee fekk banque bi fees del nijaay ji téléphoné benn jarbaatam bu mu xam ci banque bi mu daal di génn dajeeg ñoom jël chèque bi dem touché ko jox leen ñu dem mu ne ko gis nga mustafa lii rek moo tax ñu wuteeg yéen yéen xamu leen ne sunu borom lépp loo gis dafa fu mu ko jaarale kii su ma ko xamul xam nga fi la ñuy yendu sëriñ si ñu yaakaar gëmal xiyaama la ñu <laughs> lii tax ñu topp leen waaye mbokk suñu borom du àttee noonu suñu borom du àttee noonu suñu borom ci maandu te lay àttee nga xam ni ay nit dañoo ñëw ñëpp ci banque bi ñëpp fii yem yow ñiy rang ba sonn nga dem jëli suñu jaay jox ko dem yàlla du àttee noonu su ko defee kon mbokk ñu xam ni loolu lu doomu aadama dugal seen bopp waaye suñu borom teel nañoo leeralal na yowmal qiyaama mooy yowma laa tamliku nafsun li nafsin shay'a mi ngi noonu mbokk àllaaxira kenn du moomal kenn dara wala amru yawma izin lillah muy xabaar yoo xam ni kuy borom xel war cee bàyyi xel yàlla bu ne woon lépp ci loxo yàlla la nekk doy na bu ne woon kenn du mënal kenn dara doy na waaye ñaar yépp la boole yawma la tamliku nafsun li nafsin a muy benn kenn du mënal moromam dara muy benn gannaaw ba mu saxal ne wala amru yawma izin lillah mbir yépp ci loxo yàlla la nekk looloo tax ba kii di euh, euh, day taxit ba doomu aadama bi sa jaamu yàlla lu mu lu mu lu mu sell sell ci yow loo yaakaar yaakaar yaa ngi la loo yaakaar yaakaar yaa ngi góor góorgóorlu sa xel du dal mukk lu dul ne jéggi nga siraat ba teg sa bunt sa tànk ci aljanna am déet ndax aaye bi ku mel ne Saïd ibnu Jubayr ba kon ci borom xam-xami xeet bu mag bi jaamu ko te yàlla yi Hajjaaj ibnu Yusuf as-Saqafi moo ko rey ñu ngi noonu keroog ba mu koy rey bokk na ñaan gu mu ñaan yàlla yàlla naa nekk borom xam-xam bi nga mujj rey gis ngeen Saïd ibnu Jubair boobu bari woon na ñu koy gis muy joy ñu koy wax waa imam Saïd lan la mu ni ah yow wax dëgg yàlla ñun yaay ñu yaakaar kaza wa kaza mu ne ah da ngeen ne jàngul aaya ba suñu borom di wax rek wa badaluhum min allahi ma lam yakunu yaxtasibun mooy aka bari ñu ñëw yowmal qiyaama lañ foogoon ñu ko ci yàlla nga noonu yàlla na yàlla musal ñu ci loolu mi nga noonu xasanul basri rahimahullah moom it daana bëri ay jooy waaye imam xasan lu xew mu ne ah waaw su ma ñëwee yowmal qiyaama suñu boroom ne jël leen xasanul basri sànni leen sawara ku koy laaj explication mi ngi noonu faalu li yurid mooy def lu ko neex loolu moo tax ba doomu aadama bi bokk na ci erreur yi gën a garaaw nga dem ba naagu ci ne man na laa jëm bokk na erreur bu ko gën a gën a garaaw nga dem ba naagu ba ni sa jiw day liggéeyal na yàlla loo xam ne moom mbooloo meeg dëkk beeg ñëpp xaj nañ da leen yóbbaale àjjana ku la wax loolu wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yaxtasiboon noonu la feeñe ñeel leen ci yàlla loo xam ne fooguñu ko woon yal na yalla subhanahu wa taala ba a tas suñu yaakaar ci moom mi ngi noonu Cheikh Ousmane وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون بارك الله فيكم سنبرمني وبدا لهم سيئات ما كسبوا نون لي فيني ñaawteefu la ñu fagg woon wa xaaqa bihim noonu lay peega ñel leen wër leen maa kaanu bihi yastahzi'uun la nga xam ne nekkoon nañ di ko saboote di ko yëj fa ida massa al insaana doomu aadama heure ba ko mu daal dañuy woo ñun yàlla kese summa ida xawwalnaahu nicmatan minna waaye su dee jox nañ ko xéewal gu bawoo قال انما اوتيته على علم من لي دي جوتنا كو تي خم خم بل هي فتنه واي ديدت خمول ني لولو فتنه كسلا ولكن اكثرهم لا يعلمون واي لي اوب تي نيوم دي نيكو ني دي خم قد قالها الذين من قبلهم وخنا لملني ملني نيغا خم نيو لين في وون فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون نيكلون دي جيرين نيل لين لا نيكون دي فاغو fa asaabahum sayyi'aatu ma kasabu noonu la leen dali ñaawteef la ñu fàggu woon walazina zalamu min haula ñi nga xam ne dañoo toon ci ñii day sa yusibuhum sayyi'aatu ma kasabu dana leen dal ñaawteef la ñu fàggu wa ma hum bi mu'jizin te ñoom day duñu mën a nekk ditte borom bi jàlla wa ala awalam yaalamu mo ndax ñooñu xamuñu anna allaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir na yàlla mooy tàllal wërsëg ñeel ku ko ñeel ku mu soob ñeel ku ko soob moo koy gàttalit inna fi zalika la ayatin li qawmin yuminuun nekk na ci loolu day ay kawtéef ñeel xeet yi nga xam ne dañoo gëm mi ngi noonu mbokk ñi nga xam ne yaakaaruñu woon yàlla am na ñeneen ñuñ jàppoon ne ñooy régler seeni mbir suñu borom nee na bu ñu ñëwee yowmal qiyaama dana feeññal leen ñaawteefu la nga xam ne fàgg woon nañ ko te dana leen peeg te muy mbëgalum yàlla moo xam ne duñu fay génn mukk la nga xam ne nekkoon nañ di ko saboote ca mooy weddi la nga xam ne moom mooy safara loole mushrikuun yi kuffaar yi xatta ñooñu ñuy tudde témoin de Jéhovah yor seen saag yi di dugg ci seen kër yi ñoom gëmuñu safara loole bokk na luñ ci réere la suñu ndaw ñu bari di leen di wax naan ndax allah borom yërmaade dana lakk doomu aadama waaye mbokk ku weddi sawara sawara muy wàccuwaayam dana feeñ ci ñoom lañu nekkoon di ko yëj borom bi nag dellu ci moo bind ay jaamam la ëpp ci ñoom ni ñu mel mbokk lu ëpp ci jaam yi bu ñu bu lor dalee ci seen kaw dañuy woo yàlla sellal ko diineem te loolu mbokk mooy jaam yu jëkk ya amma seytaane mujj na am benn victoire ci jaami yàlla yi ba dañuy gis ñoo xam ni xatta jamonoy coono jamonoy lor keneen lañuy woo keneen lañuy ñuy yaakaar ku yàlla ku dul yàlla jalla waala te loolu mbokk ay misaal yu bari xam ngeen ko ci waaye yéeféeru jëkk ya ñoom dañoo jàppoon ne lor moom kenn da ko mën a tege muy yàlla am amma bu dee njariñ nag am na ñu ko mën a indi ñu baree baree bari mu ngi noonu borom bi nag subhanahu wa nee na su leen nag gii jal naa ko may xawwal naa ko mooy may naa ko may gu yaatu ci samay xéewal mu ne lii nag moom maa ko jot ci sama xam-xam ala ilmin indi am ñu ko jàppee ni maa ko jot ci sama xereñi waaw lii moom sama xereñi moom ma ko may te loolu am na ñoo xam ne dañ koy def ñu amee alal ñu ñëw di leen sàkku ji waaye dem leen liggéeyi leen toji leen seen nangam te mooy jàpp na ñu may seen bopp am na ñu ko firi ala ilmin te mooy lii day yàlla daa xam ne man ko baax la ko ko yeyoo la moo tax yàlla jox ma ko te lu bari ci yéefar yi dañ doon wax naan gëmuñu àllaaxira waaye yàlla xam gi ma xam ne yow naa teraanga la in rujutu ila bi la ajidanna xayran minha munqalaba mboolem lu mu am ci xéewal su àllaaxira amit dina am lu toll noonu ndax yàlla gërëm gëm gërëm moo tax mu wàcc ci man xéewal yi bokk ñaar yooyu yëpp ay erreur la suñu borom yàlla ki mu wàcc xéewal ci moom gërëm ko taxut suñu borom yàlla ki mu xañ xéewal mere ko taxul bal na la ko defee suñu borom yàlla muy fitnaal ab jaamam xañ ko wërsëg ba xam xool naka lay réagir su muñee muñ gu rafet ca loolee ko yàlla xañ te tànkam ba du dem di sàcc du agressé du PMI du riba loole da koy jural ngërëmal yàlla daraja yu kawe ci borom bi jàll waala gannaaw ba it ki yàlla jox alal alal joojee beewu ko jël na ko jaare la ko fi neex yàlla ko ci ngërëmal yàlla ku mel nii suñu yàlla da koy gërëm waaye ki yàlla jox alal da koy fitnaal da xam ngeen mbokk bàkkaar yu bari borom alal moo ko man ngi noonu bàkkaar yu bëri borom alal moo ko man tey ji da gis place yu bëri ñuy woote seen caaxaan yooyu dañaan soirée bi entrée personne solo cinquante mille waaw ku bàyyiwul dépasse xalaat ngaa dem foofu drogue bii ñuy wax ay cocaïne quatre-vingt-dix mille ak nangam nangam ku amul dépense da nga da nga dugg ci loolu kon alal fitna la ci doomu aadama yi ñu mën a def bakkaar te loolu yàlla koy fitna la doomu aadama suñu borom lu ko neexalee natto ay jaamam xolo sahabatul kiram bi ñu àndee yonente bi alayhi salaam di aju ji makka jóge madina dox 400 kilomètres ci désert boo xamee ne nii 50 degré à l'ombre suñu borom mu ne la wannakum bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum dina len natto ci lu ngeen mëna a ko ñombo rek cioké rek yépp yo xamné boy laal solo xari yi di ko jàpp suñu borom mu ne nag araamal naa ko ci yéen li yaalama allahu man yakhafuhu bil ghaib ngir yàlla xam kan moo koy ragal ci kumpo lolin mbok alal bu ko yàlla joxé julite gi fa da kay nattu lolo tax ah suleyman alayhi salatu wassalam ba ko yàlla li nguram jàng nañ ko saba jangat ko ci sar biñu genn ci soot ngi non yàlla yaatal nguram lu ko neex rek mu daal di am ku muy indil nguuru ren di soba mille mille et quelques kilomètres benn jinne na bu na ko man am keneen ku nekk xaaral ma ñaan mu ñëw malaaka yi indil ko ko mu ne haza min fadli rabbi li li yabluwani lii day ngeneel la yu bëgg sama borom ngir mu natt ma loolu nga la way xamal loolu yow mi xëy uti dépense door dóor dara sottiwul yaa ngi ci natt bi yàlla yàlla ngi lay seetaan ba xam li sa réaction et yow mi denc compte bancaire ba ay million taxawal ay immeuble yaa ngi ci nattub yàlla yàllaa ngi xool naka ngay def ak alal ji naka ngay def ak jaami yàlla yi bal hiya fitna waaye suñu borom mu ne li ëpp ci ñoom xamuñu ko borom bi subhanahu wa taala ne lu mel nii ña fi jiitoon waxoon nañ ko firawna waxoon na ko qaarun waxoon na ko waa xawmu aat waxoon nañ ko waa xawmu samud waxoon nañ ko teewul yàlla dikkal leen foo xam ne nii fooge wuñ ko fa ñoom ñëpp ba yàlla di alak foogewuñ ko fa woon ñaawteef yi ñu fàgg woon yépp dal na leen ñii saay say sii di la sonal ci makka yit seen ñaawteef ya ñu fàggu dana dal seen kaw ci duñu mucc te loolu it bokk aay yi mu nga wàcc ca makka at yu néew lañ ca teg yàlla jox ordre yonent bi mu gàddaay de madina gannaaw ba mu wootal yéefiri makk yi ca badar kàngam yi ci nekkoon yépp mu rey leen ñenn ñi mu yeew leen yóbbu madina borom bi nag di tëj bind bi ci ni ndax ñoom xamuñu ne yàlla muy tàllal wërsëg ñeel ko ko soob ci ay jaamam moo koy gàttal ca ay kawteef nekk na ci ci nit ku gëm mbokk nit ko gëm xoolal milliardaires yi nga dëkkal laajal sa bopp ñii lu tax ñu am alal ndax ñoo fi ëpp doole déedéet ndax ñoo fi ëpp am njàng déedéet ndax ñoo fi gën a dàq kër kër yi ñooy jëkk xëy di mujj a wàcc déedéet wallahi dañuy gis ñoo xam ne nii ñu ngi jóge ci banlieue bi 5 heures du matin la ñuy quitté seen kër 11 heures ci guddi la ñuy dellu am na ci ñoo xam ne ñi nga ki lijaase universitaire am na ci ñoo xam ne nii ay ponkol lañu waaye néegu luwaas rek mënuñu koo fay am déet gis benn waay boo xam ne foo ko fekk mu naan këndëng këndëng këndëng te pourtant li mu denc ci banque bi <laughs> yàlla rek rek lakk mënu koo jeexal kon mbokk gàtt wërsëg gudd wërsëg loolu nattu la bu jóge ci yàlla dàqul nag sabab ngir am su la yàlla joxe nga sant yàlla delloo ko fa ko neex su la yàlla xañee nga muñ muñ ko rafet loolu moo tax suñu yeneen daan wax ni ajaban li amri al mumin inna amruhu kulluhu lahu xayr ak yiwi mbiri julit léppam yiw la ndax moom bu ko yàlla xañee day daal di muñ muñ ko rafet loolee jurul ko yiw bu koy jégeel boromam aduna ak alakhira su ko yalla joxe mu sant santu gu rafet loli durul ko yiw bu koy jeriñ aduna ak alakhira lolu moy ñi nga xamni dañuy sant di muñ yalla na yalla bolu ñu ca mi ngi non cheikh ousman قل يا عبادي الذين جزاكم الله خيرا سيني برموني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم نيل أي سمي جام يغا خمني جيجي نانيو دايو سن بكن لا تقنطوا من رحمة الله بولين نيكي تير ماندي يالا أي بولين دق سن ياكار تير ماندي يالا إن الله يغفر الذنوب جميعا سيني برم يالا داي dana boole bakkaar ya mboole seen dana baale bakkaar ya mboole seen innahu huwa alghafuru rahim moom mooy alghafur kiy jéggale arrahim ki yërëm ay jaamam wa anibu ila rabbikum jéngi leen jëm ci seeni boroom jëm ci seen boroom ci seen xol yi wa aslimu lahu jébbalul leen ko ci seen jëmm yi seen jëf yi min qabli an ya'tiyakum al'azab jiitu mu leen di dikkal mbugal thumma la tunsarun te bu boobaa kenn du leen dimbali wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum topp leen la gën a rafet ca la nga xam ni wàcce nañ ko mu jëm ci yéen jóge ci seen borom min qabli an ya'tiyakum al'azab al'azabu baghtatan jiitu mu leen di dikkal mbugal ma ci betteel wa antum la tash'urun ci du ngeen doon yëg moo fi lii naka la leen dikkee an taqula nafsun ya hasrata alama farrattu fi jambillah ba bakkan di wax naan ay waay alkaanga ñeel na ma waay ca nga xam ne nii gàttañ lu waa gàttañ lu woon naa ko ca sama wàllug boroom ay ci wàllug yàlla wa in kuntu la min as-saxirin doonte na man nekkoon naa doon saboote gaa ye nekkoon ca la neex yàlla mi ngi noonu boo ko suñu boroom day wax ci aaya bi nga xam ne Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bokkoon ci sahaaba yi gën a xam alquran gën a taqoog yonenti yàlla bi daana wax ni aaye bi ëpp yaakaar ci téere bi yàlla bi mooy aaye bi ñu tiim muy qul yaa ibadiya allazina asrafu mbokk suñu yonenti sallallahu bi mu wootee doomu aadam yépp dañ koy weddi sax ci seen kéeféer ñii jihaad nañu ak moom rey ay sahabaam ñii mbon gu ne def nañ ko am ci nag ñoo xam ne dañuy demoon ba yàlla ubbi seen xol ngir ñu tuub waaye nag ñu ne waaw waaw ñun li ñuy def ci ay bàkkaar yépp ndax ñun bu ñu tuubee dinañu jëriñ ah ñun daal xam naa ne jarul ñuy tuub lañuy def moom yàlla duñu baal suñu borom yàlla nag mu ne déedéet ay yéen samay jaam yi jéggi dayoo fu mën ngaa gàttal rek lu yàlla tere woon def ngeen ko bokkaale ngeen shirk ngeen lu ne def ngeen ko borom bi mu ne bu leen dagg seen yaakaar ci yërmande yàlla yàlla day bale bakkaar yépp yàlla day bale bakkaar yépp loolu nag mbokk julit la julit war a gëm mooy doomu aadama bi loo mën a def soo tuubee yàlla baal la waaye nag charte bu may nga tuub de suñu borom mu ni walazina la yad'una ma allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق wala yaznuun mu ne lii de ku ko def dana dajeeg mbugal xanaa illa man taaba wa amana wa amila amalan saliha lu dul koo xam ne da tuub amul loo mën a def ci bakkaar boo tuubee yàlla dana la baal mi ngi noonu am na ci lenn yu xaw a tumuranke rek lu mel ni ibnu abbas muy wax naan yàlla dana baal ku nekk ba mu des julit bu rey mbokk julitam loolee xam dañ koy gën a ci ñi nga xam ne nii dañ leen di tiitloo ngir bakkaar munta graw loolu waaye nag doomu aadama bi tuub tuub gu sell yàlla da koy baal lépp waaw kim rey nag kim rey bu tuub gu sellee yàlla dana ko may ci tuub ga lu mu faye waa jooju ay tuyaaba yu mat sëkk yawmal qiyaama mooy aay bi ëpp yaakaar loolu moo tax ba léeg-léeg euh, ñu ñu yàlla nattoo ñu laaj ñu ñuy laaj yu demee nii ah waaw mën imaam man de sama ndaw vraiment daal dama cee def def def def def en général ku ma ko wax ci génie mu naan la est-ce que rayagul nga téeméeri bakkan ah subhanallah imam rayaguma de <laughs> ma ne ko waa kul déglul waaw déglul benn góoru euh, waaye chamien bu bëri woon doole daa nekk ci benn dëkk agressé ku mu dajeel ci àll bi cor bopp bi jël alalam décompté décompté décompté ba quatre-vingt-dix-neuf mu rey ko mu ne ah man maa ngi bëgg a def musiba kat maa ngi bëgg a yéegi téeméer xaaral ma xool man daal da man mi war naa tuub kat dem daje benn boroom xam-xam benn jaamu ko te yàlla moom it caamin la ko moom rek xam naa na ko waaw na ko sëñ bi daal xam nga lu ma indi man yàlla damaa nattu man rey naa téeméeri bakkan léegi nag man dama doon xool ndax man mën naa tuub waa ji téy giim ji bis téeméeri bakkan déggal juróom-ñeent waaw daf na ko rey naa juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent mu ne ko xanaa xamu ne benn bakkan ku ko rey sa war a nga jëm mu ne ko kon de yow ma yeggale la ngay téeméer daal di koy rey moom muy téeméer mais suñu borom arrahman bokk yàlla muy borom yërmaande mu delluwaat ci mu mujj rek xal bi xol bi yàlla defaat ci ak tuub mu laajte waaw dëkk bi ku fi ëpp xam-xam ñu ne ko sëñ diw mi ngi noonu waaw <laughs> nañu wax suñ caam waaw jox ko beneen suñ caam mu dem ci moom wax ko fi mu jaar fépp wax ko fi mu jaar fépp xam naa ne suñ càmm moom dana wax lu jub yaa ngi dégg ndax nee na ko kii mu jóge dama koo rey mu ne ko gis nga dara doxul sa digganteeg tuub booy tuub yàlla ji la baal booy tuub tuub gu sell yàlla ji la baal mu ne ko ah, koy tuub laa bëgg mu ne demal dëkk sàngam ah, nga dogu ne lii bàyyee nga ko waaye nag dëkk bii nga nekk dañoo baaxut demal dëkk sàngam nga ànd ak ñoom jaamu yàlla yàlla dana la baal waa ji takk ay bagage am gàddaay génn dem ba ci yoon bi rek suñu borom faat ko suñ borom faat ko malaaka yi yàlla joxoon ordre ñuy jëli ku baax naaw cëpp malaaka yi yàlla jox ordre ñuy jëli ku ban ñaaw cëpp ñii ne ñoo ko yayoo musul def lu baax ñee ne ndeet ñoo ko yayoo tuub gu tuub gu sell la deeyaale suñ borom yàlla ni beneen malaaka mu wàcc ne leen xool leen dëkk bi mu jóge ak dëkk bi mu jëm fu mu fi gën a jege rek ngeen yóbbu ko foofu malaaka yi natt mu gën a jege jëkk ba dëkk ba mu jëm suñu borom ne yóbbu leen ko aljanna mboo ko xissa boobu yonent bi alayhi salaam mu ñu ko nettali hadis sahih loolu muy jàngal ne doomu aadama bi sa mbon loo fu mu mën a yegg ci ci kaw suuf it nga la waay tuubal dellu ci yàlla loolu lañ ciy jëkk a dégg ñaareel ba moo dina ne mbokk ànd ak ñu baax baax ña de gis nga waa ji la ko yàlla atteeg malaaka yi mooy ñu baax ñi mu bëggoon a fekki ca la ko yàlla subhanahu wa taala booleel ca boo dëkkeek ñu baax yonent bi alayhi salaam lu mu waxoon toogook ñu baax ak toog ñu bon li mel na nga toog ak ñuy jaay parfum ak toog ak kuy upp ay fournoom toog ak ñu baax lool la danañ wax bul ànd ak kudul ku baax bul ànd ak kudul ku baax gaa yi dem sawara lu ñu wax yaa laytani lam attaxis fulanan qalila aka ne xoon diw ba ñoo nekk sama àndoo loolee kon jeune bi jeunesse bu nekk war cee bàyyi xel bu baax borom boobu mu ne mooy alxafuur rahim alxafuur moo lay fegal mboole mu mbugal rahim moo lay jox mboole mi yërmaande looloo tax waajaa ngi nii euh, amul lenn lu baax lu mos a def mais yonent bi sam ne na àddina la jëm xafuru rahim waaye nag mbokk yàlla mooy al xafuru rahim nu ñuy def ba yooyoo xaf al al xafuru rahim boobu nu ñuy def ba yooyoo al maxfira wa rahma suñu borom mu ne la jëkk anibu ila rabbikum jéng leen jëm ci seen borom te mooy jaamu yàlla muxlisina lahu diin xaniifan sa xol bii bu ci yaakaar ku dul yàlla bu ci gëm ku dul yàlla bu ci sukkandiku ku dul yàlla waaye nag wa aslimu lahu jébbalul leen ko ci ay jëf te mbokk lislaam mooy li ngeen xam fonk yi julli woor zakat ak makka mboolem lim leen sant def leen ko wéetal leen ko te def ay ndigalam bàyyi ay tereem anibu wa aslimu mi ngi noonu loolu nag gaaw leen ci balaa dee di leen dikkal te bu boobaa kenn du leen dimbali gis ngeen waa ji ñu yonent bi alayhi salaam jox ko misaal jour ba mu tuubee ndekete jour boobu moo nekkoon jour jouru deyam su ko retardé woon benn jour rek safara la jëm loolu it moo tax yow ndawu jullit bi may dégg xam nga ni pays mi xaram na nam non waaw d'accord mais naa nu man danaa ko bàyyi fas yéene nga tuub kan moo lay xamal da nga dund ba suba yow mi nekk ci njaaloo gi xam nga ne njaaloo araam na jël nga décision danga ko bàyyi kan moo lay wax ne jour de décision ba da nga cay yegg yow mi nga xam ne yaay jël alali jàmbur kaza wa kaza moo tax borom mu ne gaaw leen ci tuub googi balaa mu leen di dikkal la nga xam ne mooy mbugalum borom bi ca dee moo koy indi kenn du leen dimbali gaaw leen toppi la gën ci li ñu wàccee mu jël jóge ci seen borom ca mooy alquranul karim avant mu mbugal di leen di dikkal ci betteel ca du ngeen yëg fan la leen dikkale te mbokk dee mi ngi noonu amul lenn loo xam ne nii lu koy mën a expliquer lu dul ne bu jotee jot na président taxul nga mucc ci ay garde corps taxul nga mucc ci nekk ci forteresse taxul nga mucc ci mi ngi noonu mën na laa dikkal foo ko foogawul woon te bu boobaa da ngay gis bakkan la muy jëkk rëcc ey waay maa ngi woo sama alkaange te la ma gàttal ñu sama digganteeg sama borom ey waay adduna fexe naa ba jàng fexe naa ba tabax kër fexe naa ba am ay njaboot fexe naa ba ami oto fexe naa ba nangam waaye suma diine dama koo sàggane woon gis ngeen adduna yépp normal na waaye suma côté yàlla dama koo fàtte woon fii ma faratu fi janbillah te loolee mbokk erreur mënta passé loolu wala waaye ni nga fexe ba àdduna bi dara réeru la ci e eh waaye solal saw dal fexe ba sa diine dara du ci réer nga fexe jaamu sa boroom loolu mooy la nga xam ne boo ko defee du rëcc waaye leneen lu dul loolu boo ko defee da nga rëcc fi ma farrat fi janbillah mu ne ay waay man de bokkoon naa ci ñi nga xam ne dañoo demoon di topp seen diine man ma leen di ree jàpp na ñii dañoo tardé ndekete ñooñu ñoom ñoo nekk ci dëgg mbokk waxi waa ji jeexagul yalla ñu fi yalla dajale suba ak jamm ba ñuy yeggale wax ja ñi nga ñaan suñu borom yalla ñu yalla boolem ñali zina anabu ilayhi wa aslimu lahu yalla ñu yalla defal aljana mi suñu waccu way mu defal ñu jéggal ak yermande wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in